jër ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu di leen jaar baax a baax di am mbégte ak contentement saa su nekk eh, koy defee fii si eh, télévision bu mag bi di Kabi TV nga xam ne saa su nekk rek am ngeen coferteeg mbégte bu baax a baax di topp nag li nga xam moo di eh, seen émission Kabir matinal Kabir matinal nag daal di kaat teewaat bu baax a baax mais di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di ñu jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ni ñu ngi xerawlu bu baax a baax waaye tamit am li nga xam moo di confiance seen seen bu mag bi di Kabi télévision boo xamante ni eh, fépp foo nekk si adduna bi war nga képp mën nga ko daal di am jàkkaarloog moom bu baax a baax lépp la xamante information la lépp loo xamante ni eh, li ñu war a daal di eh, analyser la càmbar ko bu baax a baax fii lay xewee si Kabir matinal rawatina Kabir TV ñu ne ñëpp mbokk yi di ñaanal yàlla kilifa diine yi ak kilifa aada yi waaye tamit yàlla dafa leen jàmm ak salaam sutura wér ak wér gi yaram Eh, tamit di ñaanal ñi nga xamante ñooy suñu xalif généraux yi yàlla yàggal leen fu baax a baax eh, tax ñu seen barke eh, di ñaanal yàlla tawat si kër yi ni si hôpitaux yi yal na bu baax a baax ñi nekk maison d'arrêt et de correction yal na ne fa yàlla génn ak jàmm ak salaam ñuy yi ñu ne si marché yi suñu yaay yi di jaay di jàngi jàngi lépp lu waay di yëngu rek yal na sa gis njëriñ li di nuyu ñëpp ne si bureau yi ne si marché yi ne si jakartaay ne si tas yi kalandoo yi ñëpp bàyyiwuñ kenn kenn ku nekk rek vélo pédale yi sax ñiy dox lépp euh, ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar bu baax a baax waa ñu nekk ñi jox seen seen mbégte bu baax a baax mbokk yi sans rek euh, comme ni ñu koy defee saa su nekk lépp loo xamante nii information la internationale nationale waaye tamit euh, lépp loo xamante wàllub tàggat yaram la dinañ ko daal di farañ fàcce politique aussi dinañ si daal di euh, yëngu bu baax a baax ndax nag euh, fu mu toll nii langue politique bi daal di nay euh, tàkkaar naas mbokk yi dañuy dem rek xam ne moom moo di revue des titres yi fa nga xam ne moom moo di diwaanu fi nga xam ne moo di l'observateur l'observateur lu muy xam ne rek moom moo di validation de la candidature de Karim wadd nga xamante ne nii moom daal li nga xam ne moom moo di. Euh, double moo di euh, euh, double nationalité boobu nga xamante moom la daal di def nag li ko daal di tuddee rek moom moo di un crime impar imparfait crime imparfait nag moom la ki nga xam ne moo di l'observateur daal di def nag si mu xët mu njëkk bi moom la ko daal di tuddee daal muy loo xamante ni daal waaye nag ki nga moom moo di France ñoom nag démb daal leen doog a daal di xamle ne ki nga xam moom moo di. Euh, Karim Meïssa Wade daal di nay nag euh, dindi beneen li nga xam ne nationalité bi donc boobu ba léegi nag euh, Karim Wade kon. ba mu déclaré dindi woon na nationalité France boobu noonu kon dafa mel ni daal euh, mujj ko woon dindi ndax France démb leen doo a confirmé ne euh, kii di Karim Meïssa Wade daal dina koy dindi loolu nag mu nekk loo xamante ni depuis lors ñu ngi naan ki nga xam ne moo di daal dafa daal di daal euh, nërmee la ñëpp ndax ñëpp daal ba cappaandaw ga waaye nag fu mu toll nii daal def nañ li nga xamante ni moom moo di signalé ne waa France wane nañ ni ñoom daal def nañ li nga xamante ni moom moo di ki nga xam ne moom moo di nationalité boobu mu muy nationalité français bi daal di leen koy dakkal waaye tamit euh, fa nga xam di pëncub euh, ndaw réew mi muy euh, li nga xam moom moo di au conseil constitutionnel ñoom nag li nga xam ne moom moo di Euh, vingt et un candidats yi nga xamante ni euh, ñoom nag euh, ñoom ñoo daal di rek aju si li nga xam ne moom moo di au conseil constitutionnel ñoom nag ñi nga àddu rek si li nga xamante ni moom lañ daal di dëppee nag mooy li nga xam ne moo di wàllu parrainage yi nga xamante nii nee nañ daal dañ ko daal di salfaane maanaam defoon ko si nañ ko waroon defee daal ak ak si yelef daal dañ ko daal di xaw a salfaane bu baax a baax waaye tamit eh, ki nga xam moo di eh, Aliou Cissé moom tamit li nga xam moo di eh, affaire am daal fu mu toll nii wóorutul dara ndax nag li nga moo di milieu terrain yi fu mu toll nii dañoo xaw a tàggatémbe waaye nag gis neen li nga xam moom moo di gonfale milieu terrain yooyu noonu nemmeeku na si nga xam moo di Pape Gueye daal dinay dikkaat si milieu terrain ba Lamine kamara moom tamit ma nga sa mbir ma ndax nag soo seetloo ñoom ñaar ñooñu match bi mujj daal ñoom ñoo daal di yëngal li nga xam ne moom moo di. ci caaxu waa Gambie yi ba nag eh, ñi ñu kontaan waaye tamit eh, ki nga xamante moom moo di Nabali moom tamit eh, dal di nay dikkaat renforcer mbir ma Ismaila Sarr ñoom tamit ñi ngi naam naame ne moom daal dollar la day yéeg ak a wàcc bu teye mu dox bu subaa du dox ñoom nag ñi ngi koy nattam leeg dollar nga xamante ni bu teyee mu daal di aju sa kaw bu subaa mu daal wàcc ba nga xamante ni daal euh, kenn xamul nuñ koy daal di nattamle moom Ismaïla Sarr ndax nag euh, nekk footballam daal fu mu toll nii euh, Sénégal yi daal ñu ngi koy jeexi jaaxa ndax bu tey mu dox bu subaa mu dox loolu nee neen du arrangé li nga xam ne équipe di Sénégal war na xoolaat boppam bu baax a baax ngir nag gën a mën a fournir li nga xam ne moom moo di impact am si nga xam ne moo di étude nationale yi étude d'une cas importante nga xamante ne nii euh, li nga xamante moom moo di euh, dollar boo xamante ne nii dafay daal di euh, Cameroun ak Sénégal nga xamante ne nii waa Cameroun daal ñoom ñeen daal lépp loo xamante ni mooy collectif ak li nga xam ne moom moo di Euh, entente dafa xaw a des si équipe ba nag ba ki nga xam ne moom moo di ex euh, ki bu Cameroun moom daal àdduna bu baax a baax loolu it euh, mu ngi koy ñaawlu bu baax a baax loolu fële diwaanu ki di Cameroun daal di xewee Viviane daal di ak ki nga xamante moom moo di Colis moom nag kilibam bu bees bi nga xamante ni ñoom ñaañ si xët bu njëkk ba mu daal di koy tuddee nag sob mu nekk nag kilib boo xamante nii euh, clip bu am solo la euh, ki nga moo di euh, l'observateur daal na si addu bu baax a baax waaye tamit nag lépp loo xamante ni nag tournoi boo xamante nii dafay daal tribunal bu Ndakaaru tribunal bu Ndakaaru nag lu ñuy xam rek moom moo di ab waajoo xamante ni daal dafa damm dafa daal di damm nag euh, benn liir bu am ñett euh, ñett at daal di damm loxo ya moom nag euh, waaja dañ ko daal di defeere fa nga xam ne moom moo di fa mbaxana doone benn mu nekk nag loo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax Euh, fële sa diwaanu Mbour euh, koo xamante ni daal da doon filmer ab soxna suy euh, doon sangu moom tamit daal yóbbu ne ko fa mbaxana doonee benn daal di koy nag fi vidéo ba mu doon def nag vidéo moo ko mujj jural li nga xam ne moom moo di guuta ba mu toll nii daal daal di leen koy jëfeere nag fa nga xamante fa la mbaxana doone benn waaye tamit bu ñu adoo rek si nga xam ne moo di le quotidien le quotidien rek moom tamit dafa ñëw rek daal di bokk ak ki nga xam ne moo di l'observateur titre ndax nag bind rek moom moo di euh, le crime euh, imparfait moom la daal di moom tamit teg si xët mu njëkk bi euh, xam ne rek kii di Karim Wade daal moom daal lépp loo xamante ni daal moom la daal di naxee mbaay Sénégal yi daal ba yegg fi mu yegg si waxoon leen daal ne amul li nga xam mooy double nationalité waaye loolu daal ki nga xam ne moom moo di Euh, suñu euh, al Thierno Alassane Sall Sall nag moom da ko daal di attaqué rek attaque bu métti métti waaye kii di Karim Wade daal di reporté ne nag euh, ki ne si ginnaaw Thierno Alassane Sall du kenn ku dul ki moom moo di Amadou Ba Amadou Ba nee daal moom moo jàpp moom moo nekk si ginnaaw Thierno Alassane Sall ba tax nag moom mooy wax yi mu wax yëpp si koom waaye daal loolu daal fu mu toll nii ñaari double national daal ki nga xam ne moo Thierno Alassane Sall nee na daal kii di Karim Meïssa Wade dafa daal di nax. àdduna bi yëpp ba yegg si fi mu yegg tey euh, ngir nag di wax ne dafa am amul ñaari double nationalité ba loolu daal waa France xam na leen na ñoom kii di euh, Karim Meïssa Wade démb daal lañ daal di dakkal euh, li nga xam moo di nationalité boobu noonu fële sa nga xam ne moo di Ah, mbir ma waaye tamit eh, gis neen xam moo di eh, terre bi terrain bi dina daal di tàmbali na fële sa Ziguinchor waaye Dakar Tambacounda lay daal di eh, tàmbalee dakaar ba Tambacounda dinañ ko am foofu noonu li ki nga xam di la libération libération la lu muy xam ne moom moo di difficulté ba ay jafe-jafe yu am fële nga xam moom moo di mairie bu Guédiawaye ñoom tamit dañoo def benn virement boo xamante ni daal virement erreur la benn somme bu toll si 79 millions nga xamante ni daal nee na dañoo daal di juum li nga xam ne moom moo di cent 986 million francs fa ñoom daal dañoo daal trompé wu def ko ci benn euh, compte boo xamante ni compte kuñ ko def nag kooku benn. sax la boo xamante ni nee na daal euh, mairie ba da ko yoroon xaalis ba tax na daal du delloo li nga xam ne moo di mbir ma ba fu mu toll daal waa ji ko mujj daal di koy nag euh, defeere euh, fa mbaxana doole benn waaye nag mu nekk aussi loo xamante ni lu doy waar la ndax li nga xam ne moo di ki nga moom moo di seen maire ba di Ahmed Aidara moom tamit daal na si addu lu yaatoo yaatu ba waa ji daal fu mu moom mooy ville bu ak Géejawaay waaye tamit eh, bu ñu ñëwee si nga xam moom moo di eh, Thierno Alassane Sall ba tey moom tamit àdduwaat na si nga xam moo di eh, Karim Meïssa Wade nee na daal dafa daal di nax àdduna bi yëpp xamle ne moom benn nationalité la yor muy nationalité sénégalais waaye nag la aju sa mbir ma dafa laxasu maanaam laxas jaan sa mbir ma muy ñaari nationalité fële sa wàllu France nee daal neen lijjanti loolu balaa ñoo wéyal li nga xam ne moom moo di mbir mi kii li nga xamante moom baax moom tamit daal di nay daal Euh, jéem a beddi ki nga xamante ni moom moo di euh, Bassirou Diomaye Faye mu nga xamante ne Pastef la bokk nee na daal comme ñoom seen li nga xam moo di parrainage validé wuñ ko bu baax a baax nañ ko càmbaraat xool ko ndax ñii daal waruñoo dem bokk si nga moo di euh, fa nga xamante ne ñuy jongante jongante ndaw réew mi di xool li nga xam moo di kan moo war a jël li nga xam moo di suñu njiitu réew le 25 février loolu daal ki nga xam moo di suñu premier ministre. moom daal mu ngi bedd ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye ngir mu bañ a bokk si mbir moom Les Échos daal di ñëw si Ousmane Sonko nga xamante nii daal nee na ñi bindoon lettre boobu xaatim ko ngir président de la République moom Ousmane Sonko nee na bu ko si kenn boole bindul binduluwul eh, képp kuy eh, dem ngir wax si turam laaj ko affaire ba moom la ki nga xam di eh, Ousmane Sonko daal di xamle ña doon bind lettre ngir nag daal di koy jagleel président de la République ñoom nag aju woon si li nga xam ne moom moo di opposition bi moom nag nee na bu ko kenn tudd si yooyu tey képp kuy eh, bind si turam na nga ñëw laaj ko avis ba pare nga doog a def bu la joxee avis nga doog a daal di eh, départ. ba tey rek euh, ñu daal di wéyal nag euh, li nga xamante moom moo di euh, les échos les échos aussi daal di dikkaat nag bu baax a baax si li nga xamante moom moo di wàllub li nga xam ne moom moo di gaynde yi nga xamante ne ñoom dañoo nar a jongante suba fële nga xamante moom moo di sa Côte d'Ivoire muy CAN 2023 bi ñu daal di dëgmal mu nekk na match boo xamante ni ñëpp a ngi koy xaarandi les échos daal na si àddu nag bu baax a baax waaye tamit su ñu ñëwee rek si li nga xamante ni moom moo di fële nga xamante xamante moom moo di euh, jam ñaajoo nga ab euh, mbir mu doy waar boo xamante ni benn xale bu jigéen daal dañ ko fa daal di euh, jam ak dafa daal di bootaan doom ja nag moom loolu mu nga xew fa daal di koy jam nangu doom ja doom ja mu daal di koy yóbbu waaye tey fii nga xam ne moom moo di Tëngéej rawatina fële sa Sonadis si wetu Sonadis rek la ñu daal di nag teg li nga xam ne moom moo di ab pistolet benn xale bu jigéen moom tamit daal di bu doom jëm daal di bootoon euh, def ko si benn oto daal di dem ak euh, xale ba loolu nag mu nekk loo xamante ni euh, ndiki démb ak tey xisonance li nga xamante ni moom moo di euh, jigéen ñi nga xam ne ñuy teel a génn teel a génn googu nañ koy jëri évité wala boog suñuy génn bu ñu amee seen càmmeñ ju leen daal di gunge mën na leen gunge ndax nag saa saa yi ban leen dogaale bu baax a baax mu nekk nag loo xamante ni information bu ñuy daal di jàll la ngir nag ñëpp mun ko daal di taataan ngir nag mun a saytu xale yi bu baax a baax mun leen aar ndax aar la rawatina nag euh, jigéen. mbokk yi dañuy wéyal rek li xam moo di euh, international daal di dem fa nga xam moo di euh, Bénin Bénin nag daal di nay arrivé premier vaccination contre la paludisme moom nag daal di nay andi rek li xam moo di paludisme premier euh, arrivage am vaccination ya mu nga sa biir bene fu mu toll nii nag ñi ngi koy euh, saytu bu baax a baax ngir daal di euh, amal nag li nga xam ne mbir moomu loolu nag mu ngi daal di ñëw le 15 janvier la daal di nga koy indi premier. 15 janvier euh, 2024 premier vaccin yi contre la paludisme euh, loolu nag nemmeeku nañ si 215 900 dossiers yoo xamante ni ont été euh, réceptionnés fi nga xam ne moom moo di diwaanu rapport ya international de la euh, santé ministre de la santé et des euh, euh, représentations de li nga xam ne moom moo di UYAF moom nag daal di nay xam ne loolu fële nga xam ne moo di l'OMS OMS nag daal nekk euh, ki nga xam moo di de l'agence globale pour la vaccination de Bénin foofu nag mu nekk nag vaccination boo xamante ni ñu ngi koy daal di laam-laam fële nga xam ne moo di euh, Bénin waaye RDC Congo ñoom nag daal di ne nag annoncé la mort de deux décès. Euh, commandant mu nekk nag loo xamante ni aussi fële sa RDC Congo ñi ngi xam ne daal seen ñaari commandant yi dañoo daal di nag euh, ñàkk seen bakkan ñoom ñu koy daal di nag euh, annoncé fële nga xam ne moom moo di wàllub RDC Congo euh, li nga xam ne moom moo di nag violence combat boo xamante ni dafa amoon Euh, si li nga xam moo di euh, autorité yi ak li nga xam ne moom moo di euh, mission bañ daal di amaloon si seen combat boobu daal moo tax kongo daal di ñàkk nag ñaari commandant yoo xamante ni daal dañoo def li nga xam moom moo di bataille de guerre benn daal di si ñàkk seen bakkan ñu dem si wàllub sport wàllub tàggat yaram wàllub tàggat yaram nag mu nekk li nga xamante ni yaakaar naa kenn dootu ko naataan ndax CAN 2023 bi euh, Sénégal ak euh, ki nga xam moo di euh, dañuy daal di Cameroun autant pour dañuy daal di laal nag ëllëg 17h lay daal di am mu nekk na match boo xamante ni match bu nara métti la ndax ñëpp ñu ngi koy xaarandi waaye rawatina Sénégalais yi dinañ ko daal di amal bu baax a baax waaye bu ñëwee nag fi nga xam moo di CAN 2023 Lat Dior Alioune 43 euh, millions au euh, comité euh, des sports mu nekk nag loo xamante nii comité sportif bi daal di leen di jox nag 43 millions ngir nag ñu daal di koy amal lu mucc ay waaye après li nga xam ne moom moo di 50 millions yi nga xamante ni moom leen leen daal di jox daal yokku na si moom di 60 millions 60 li nga xam ne moom moo di mayo de l'équipement mu nekk nag loo xamante nii ñoom daal ñi ngay wéyal seen mbir ma fële sa Côte d'Ivoire waaye nemmeeku neen euh, fële sa nga moo di Côte d'Ivoire CAN 2023 bi li nga xamante ne moom moo di daal euh, njaayum euh, ticket ya am na daal ay li nga moom moo di ab xët-xët bu métti métti foofu sa diwaanu Côte d'Ivoire ndax ticket yi daal fu mu toll nii dafa am problème moo tax daal nit ñaa say addu bu baax a baax foofu nga xamante ni moom moo di diwaanu Cameroun match Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun ñoom nag eh, dina laale ëllëg eh, fi nga xamante nii moom moo di eh, fële sa Côte d'Ivoire ñoom nag lépp loo xamante daal suba incha allah waaye ndiki tey yii dina am ay match yoo xamante ni match yu neex la ndax Côte d'Ivoire dina laale ak Nigéria loolu 17h lay am ki nga xam moom moo di Ghana dina laale ak moom moo di. Égypte loolu 20 heures lañ koy daal di amal euh, ni ki suba ëllëg euh, dina amal benn match kese moom mooy daal di am 19 heures 19 janvier 2024 Sénégal ak Cameroun loolu à 17 lañ koy daal di amal euh, li nga xam moo di 20 janvier 2024 dinañ amal moo di Algérie ak ki nga xam ne moom moo di Burkina Faso loolu 14 heures lañ koy daal di amal Tunisie dina laale ak Mali loolu 20 lay am loolu nag ki nga xam xam moo di le 20 janvier lañ koy daal di amal waaye 21 janvier 2024 Maroc dina laale ak RDC kongo loolu 14 heures lay daal di am mu nekk nag match yoo xamante nii match yu am solo la. loolu moo nekkoon seen revue de titre yi euh, gën a fës li nga xam moo di mbir mi waaye tamit euh, suñu nemmeekoo rek li nga xamante ni moo gën a euh, daal di fës yi moom moo di yi seet nemmeeku nañ si politique bi nemmeeku nañ si sport waaye li nga xamante ni aussi people ku si mel ni Viviane moom tamit kilibam boobu mu génnee daal di koy tuddee li nga xamante moom moo di sopp muy clip boo xamante ni clip bu am solo la l'observateur mu ngi ko daal di fësal si xët mu njëkk bi waaye tamit eh, li gën daal di doy waa rek mooy eh, ki nga xamante moom moo doon vidéo soxna soosu eh, waaye vidéo ba nag mujj ko jural ay jafe-jafe bañ mujj ko daal di defee rek loolu mu ngi xewee fële sa diwaanu Mbuur Géej waaye tamit bu ñu nemmee ko fële nga xam ne moo di démb sa jam ñaajo ab euh, xale bu jigéen boo xam ne dafa boot doom moom tamit dañ ko daal di jam daal foqati doom ja daal di koy yóbbu waaye tamit euh, tey ñu nemmee ko fële sa tëngee ci côté Sonadis bi noonu rek moom tamit euh, benn jigéen boo xam ne daal dañ ko teg ab pistolet daal di nangu doom ja daal di koy dugal si oto daw ak moom loolu yëpp daal fu mu toll nii ñuy ñaax nit ñi rek ngir que ñoom tamit ñu mën a daal di saytu bu baax a baax xale yi mu nekk loo xamante nii lu euh, ama am solo la ngir ñëw aar li moo di tout tànk yi waaye candidature double candidature nationalité bi nga xamante moom la Euh, Karim Meïssa Wade daal di euh, ki moo di al Thierno Alassane Sall daal di koy attaqué euh, kii bi nag daal di ne daal ki ne si ginnaaw Thierno Alassane Sall du kenn ku ki nga xam moo di suñu ministre bi di premier ministre Amadou Ba moom moo ne si ginnaawam di ko dooleel daal loolu daal la njort moom Karim Wade loolu la xamle it ne moom moo ne si ginnaaw waaye du kenn mu nekk nag loo xamante nii lu am solo waaye ba tey li nga xam moo di lépp loo xamante daal mooy euh, suñu euh, président Sonko nga xamante ni moom tamit daal dina xamle daal ñi xaatim euh, ab bataaxal boobu jébbal ko woon président de la République moom nee na bu ko si kenn tudd bu ko si kenn taas ndax moom képp koo xam ne daal yaa ngi dem si suram ñëwal laaj ko affaire bam daal di lay accordé nga mun a dem. Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xam ne moo di euh, Amadou Ba Amadou Ba nag mu ngi koy euh, jéem a beddilu euh, si li nga xam ne di pencum ndawi réew ngir nag mu bañ a bokk neen daal ñoom comme ñoom seen parrainage daal dafa am jeexi jaaxa waru ñoo mën a bokk si li nga xam ne moom moo di présidentielle le 25 février 2024 moom Amadou Ba mu ngi jéem a daal beddi ki ne moo di waa Pastef rawatina Bassirou Diomaye Faye mbokk yi mu nekk nag loo xamante ni yaakaar naa lu am solo la Cameroun mi war a jàmmaar jàkkaarloog euh, Sénégal ñoom daal seen staff ak seen encadrement ak nag li nga xam ne moom moo di euh, seen euh, considération xaw na fa manqué yi si jafe-jafe ak déggoo ya ba tax na kii di ex defenseur ba génn na nag addu si bu baax a baax wax si ab ponc bu yaatu ki nga xam moo di Aliou moom tamit. affaire am euh, wóorul daa wóoratul dara loolu daal la xamle ndax nag mm, wàllu euh, défense ba euh, fu mu toll nii daal daal di nañ wàllu militaire bi sax du moins daal di koy gën a nag renforcer ndax ñi nga xamante ne nii ku si mel ni Pape Gueye ku si mel ni Lamine Camara nga xam ne match bu mujj bi ñoo daal di yeewee askan gi daal di nag dugal bi ya tax nag Sénégal daal di dem nag wulli ki nga xam moo di Gambie wulli Birame Ndiémé ñett bal dara ya moom tamit ñoom ay défense adversaire yu mucc ayib la waaye bu ñu nemmee ko rek Nabaly daanay day eh, ñëw si mbir moom tamit yokk si aussi waaye Ismaïla Sarr nit ñaa ngi koy laam-laamee footballam bu teyee mu dox bu subaa mu du dox ñu naan nag moom est-ce que eh, fu mu toll ñu ngi koy nattable dollar day yéeg ak wàcc moom Ismaïla Sarr moomu ndax yéeg ak wàcc boobu daal du arrangé li nga xam ne moo di eh, équipe nationale du Sénégal kon daal no xoolaat taxawaayam bu baax a baax si biir équipe nationale du Sénégal mbokk looloo gënoon fees xibaaru li nga xam ne lu gën a fas si xibaaru tàggat yaram yi ak revue de titre yi mu nekk nag loo xamante ni yaakaar naa saa su nekk rek ne lañ koy eh, jàngat bu baax a baax fii nga xam ne moom moo di eh, Kabir matinal seen télévision bu mag bi di Kabir TV rawatina fële eh, di leen koy càmbar gis ngeen RDC Congo xam ne moom moo di seen ñaari commando yooyu nga xamante ni commandant yaa yoo nga xamante ni dañoo daal di ñàkk seen bakkan si bataille de guerre mu nekk nag lu am solo waaye fële nga xam ne moo di Bénin ñoom tamit lii di paludisme bi. bi daal di na fay dugal daal li nga xam ne moom moo di vaccin ba ngir nag ñu mën a aar population ba saytu leen bu baax a baax ñoom tamit ñu ngay aar li nga xam moo di seen diwaanu population loolu mu nga xewee fële sa RDC fële sa nga xam ne mooy international rawatina Congo ak fa nga xam ne moom moo di euh, Bénin mu nekk nag lu am solo ñuy jaajëfal ñëpp di jox ñëpp euh, dig daje suba ak jàmm allah waaye tamit di bàyyiloo xel rek nit ñi ñi nga xam ne moom moo di oustaz Souleymane Diaw bësam boobu nga xamante ne ni moo ngi koy amal fii si euh, euh, camp Gémi nga xamante ni muy ñu koy wax camp tropical donc muy bés boo xamante ni saa su nekk da koy amal at mu nekk ren nag jàpp na ko euh, fële sa camp tropical la koy amalee ñuy wax nag ñëpp nga xamante ni képp kuy soppe oustaz Souleymane Diaw nga daal di koy teew si bës boobu muy bés boo xamante ni bés bu màgg la bés bu am solo la bés bu nekk lépp lu wax rek nit ku koy xewal bësam rek yaakaar naa ne euh, xewal nga ko léppam donc moom oustaz ma Diaw di suñu euh, oustaz waaye di suñu xarit di suñu lépp ñu ngi koy jaajëfal bu baax si bësam boobu noonu dinañ ko si gunge dinañ ko si jàppale bu baax incha allah rabi mbokk yi ñu ngi nuyu baax a baax euh, Assane euh, nga xam moom mooy nekkoon si mbir mi di ñu daal di taaral tey moo nekkoon si euh, li nga xam moo di caméra yi waaye tey yàgg moom tamit daal dafa ndërmal <laughs> dafa bu subaa mu ne moom tamit dollar la moom comme Ismaila Sarr laa koy jàppee dollar la bu téyee mu yëg bu subaa mu wàcc <laughs> moom yàgg soow ab dollar bu bu rëy rëy nag donc ñu ngi koy nuyu passage bu baax a baax di nuyu Ndeye Awa di nuyu nag ki moo di Khady Sare nee na bu ma wax de Khady Sare <laughs> <laughs> maa ngi nuyu Khady Saré sama goro di nuyu aussi ki xam ne moo di euh, sama chéri Ami Saré di nuyu nag oustaz euh, ki nga xam ne moo di la PDG des PDG oustaz euh, Kabir Sène ñu koy ziar di ko nuyu bu baax a baax moom mu ngi depuis États-Unis di nuyu waa États-Unis yëpp di jox ñëpp seen wàccaay mbokk yi ba suba ak jàmm allah jël ngeen jëf.